waaw loolu moom yaakaar nañ ko. ana Modou. Modou mi ngi këram nag xam naa. ci lima ma foog astaf. kañ nga ko mujjee gis. yàggul wax dëgg yàlla. seen photo bi bi bi nii fan la woon. Moodu xa loolu këram la mel ni kër la woon la woon këram la woon. ci biir koor gi la wala après koor gi. Euh, ci bi ci biñ ko avant woor loolu yàgg na. Hmm. avant ñoo woor waaw. da ngaa demoon seeti ko wax dëgg yàlla Moodu famille lañ wax dëgg hmm. yàlla waaw famille lañ ndax tey ba njaay kër baakar benn la hmm, waaw loolu ñëwoon tey seet si la na la si la dama laa bëgg a deey maa bëgg jëlaat avance Balla Gaye 2 loo koy wax muudu ndax dëgg yàlla yàlla suñ borom dogal na ni aw fitam damaa ñëw fekk ko ak moom xanaa xamoon nag tey dinaa la wax loo nga xamante ni dara du ko dindi hmm. nit ñi nag buñ ko déggee bu ko tekkee noo nga xamante ni waxewuma ko noonu xanaa xamoo làmb fii ci ci euh, fii bu ñuy wax ci tanoor yi ñi nekk ci kaw mm-hmm. ma wax la dëgg mm-hmm. Balla Gaye la ak Modou Lo mm. ñoom ñooy làmb ñoom donc ñooy du ñoom nekk dama la ñoom ñooy làmb ñoom la yàlla defal succès bu tol ni bi mu leen defal wallahi saa yi làmb naree ndër xaw ma daanu rek wala làmb nara wàcc rek buñ tëggee buñ organisé Balla Gaye ak mooduloo rek làmb day jugaat jëm ca kaw. xam nga Baye Jili Modou dafa mën a bëre xam nga boo waxee danaan li ngeen seq mais dama seetaan boobu sequñu dara wax dëgg yàlla. mën naa ni xam naa ko sax mais boobu xaw ma contre seen contre ëmm seen bu njëkk ba. Hmm. bi ma ko seetaanee laa leen booy bi mën naa bëri. torop hmm. waaw mën naa bëree torop macha allah.